bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëfe sëriñ Tuuba jaram maam Seera Fall jàng xasida lu am solo la ci doomu aadama te xasida mu ngi mel ni euh, moo tur yàlla yi dañoo xaw a niroo ndax euh, sëriñ bi wax euh, tuur yàlla nga wér de tuur nga wér benn tur bu sax moo gën nga jàng xasida te xasida moom amul benn danger xasida moom nga ni nga koy tarbiyoo nga tarbiyoo benn xasida moo gën fuuf nga jàng ci junni xasida waaye xasida yépp am solo amul benn bu ci amul solo nga euh, jaalibatul ba wakaana xaqan alay naa nasu si sindiidi bi ñu wax ne gaynde la ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu ci nekk dafa am lu muy def ci doomu aadama bi man de tofatul mota dara xii na wu naa ko ba nga xam ne demoon naa ba am ci xusuusiya di def di dindi waaw Serigne Touba euh, amul amul morom serigne bi du kenn kenn du mom tofatu lu doy war la lu doy war lu doy war gaay xam nañ ko mom mi nga xamni day agale nit ci yalla te day defar wali bu yaqku kon tofa lu am solo la sokoy jang day dem ba lepp ngay xam lepp lo bëgg dang koy am ndax serigne bi moko wax tofatul hina, fi tawassul bi asma'il mufaddarin ak dalay agale yalla agale ci ci yalla bu gaawa gaaw sëriñ bi waxoon ni jàng xasida euh, daf lay àggale ci yàlla tuwaasilu aqlaami ilallahi xaabidan bilaa xalwatin ci lu dul dugg xalwa euh, wallaahu afha kama ahna kon euh, xasida lu am solo la waaw jaalibatul maraxib lu lu yéeme la sëriñ bi noon na su jàpp leen ci sama xasida yi su ngeen ma gisul ngeen jàpp sama doom yi su ngeen ma gisul ngeen jàpp ci xasida yi ngeen jàpp ci jaalibatul maraxib ndax bu man suma ma duma am jot pour tarbiya leen ko te jaale boo ku ci jàpp dina la tarbiya ndax daf lay eggale ci yàlla bari na ay gars yi nag yu koy jàng ñu naan danoo dofa gi danoo danoo sellu ndax xasida noonu la mel ku koy jàngatee selloo da ngay dof ah ndax yàlla te xasida dafa am doole ba nga xam ni képp ku koy jàng maraaxib daf da ngay dem ba fannaaw ba nga xam ne nit ñi dañ naan waa ji dof la waaye soo del si waatee baqaaw da ngay daal di àgg ci yàlla waaw xasida sax moom amul benn danse ndax sëriñ bi segg na ko ba dindi danse yi nekk ci xasida yépp képp ku koy jàng te ko yaa alal ndax ku saxaw xasida te sell ak alxuraan da ngay daal di àgg ci yàlla bu wér a wér wa kaana xaqan alayna nasrul mu'minin wa kaana xaqan lu doy waar la ku koy jàng dangay ngay dem ba lépp loo bëgg da nga koy am waaw sëriñ bi moo ko wa kaana nekk na xaqan dëgg alayna ci ñun nasrul mu'minin mu nekk ndimbal ñun jullit ku ko saxoo bu soob yàlla lépp loo bëgg da nga koy am mawaahibu naafeex fi madaahi saafeex moom day def di dindi ku réer mu gindi waaw ak jazbul xulub képp ku sànku ba nga xam ne sànku nga wala nga yor xol xol bu lëndam soo ko jàngee dalay soppi day mujj lewet ba mel ni am xar rabbi bi ma yasrahu it moom it am na solo lool lool lool lool lool lool lool yépp am solo bu ci waay jàpp te sellal ko mm, mm, di nga gis njariñam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجاد كل بأمن وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك لا البدير